asalaamaaleykum gars yi information bi wàcc na Sadio maane dem na def test ñu ne ko mënoo football forfait maanaam saajo maane mondial bi yëpp du ci football liste bi sax dañ ko ciy effacé ku xamul lan mooy loolu léegi nag léegi fi sës Aliou Cissé na jéem a woo Pape Ousmane Sakho ki nga xam ne nii mooy meilleur buteur attaquant bu ay bi Pape Ousmane Sakho mu remplacé kii nga xamante si nii mooy saajo maane lu mu def na gaaw nag. fédération bi wax nañ ko tey la demoon def defi texte texte yi génn na nee nañ ko mënut a fubal Sadio maane maanaam mondial bi yëpp Sénégal mën nañoo fàtte Sadio maane maanaam Sadio Mané dootul ñëwati ci mondial bi du fubalati moom na xelam maanaam Sénégal yëpp nan génne seen xel ci saajo maane xam ne Sadio maane mondial bi yëpp saajo maane du ci fubal li fi sës mooy Aliou Cissé na jéem a woo Pape Ousmane Sakho mu remplacer ko xam ngeen bu baax kan mooy Pape Ousmane Sakho. naka woo mu remplacer Sadio Mané point information Adama sur rapide salaamaaleykum gars yi salaam